لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك assalamualaikum mbokk yi jël yi su ngeen déggee kaddu ya gu daw yaram googu muy labayka allahuma sharika labayka nga xam ne xel yépp day dem ci dëkk bu tedd bu muy makkatal mu karam diggante makka ak medina loolo waral agga gi jub si mooy association réseau national des femmes de japo jóg ci niñ ko yàgg defale daan gunge pleurin yi daan gunge ujaaj ak ñoom ci makka ak medina fas ubi ubbi li nga xamante ni inscription yi di woo julit yépp ñu ñëw kañ lañ ko door fi nga siège bi nga xamanteni mo nek ci 10 vous fi ci siège foyer des femmes sen président ki nga xamanteni moy dam mu mi àndandoog ñépp ngir ñu dem màkkatal mu karama diggante màkk ak Medina seen réputation bu baax seen dalwaay yu am solo seen hôtel yu luxe yi transport bi nga xamante ni lépp ci yoon lañ ko teg jege loolu dalwaay yi diggante ka Kaaba ga ak fi nga xamante ni mooy jàkkay Seydina Muhammad looloo tax ñépp fas yéene biir jëm fa nga xam ne mooy inaakuwaa jàppoo kon nag jëlal ma numéro yi yow bi bëgg a ziyaare gi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bul xeer bul yeex bul yeqantalu àggal foofa wala nga jëlee ci numéro yi muy 77 533 82 35 wala 77 657 90 00 waa jàppoo xarañ lool ci mbirum aj xarañ lool ci pèlerinage ak umra ñoo leen woo ci numéro yooyu ci seen jiital président Dame Diagne ubbi nañ ndorte deew leen fi nga xamante ne mooy siège ba nekk ci dixième foyer des femmes woo nañ ñëpp Makkatal Mukarram